damay bañ non seulement visionnaire laa waaye damay settantal ak a xor-xoral damay bañ rek da daloon mu butu dal la mu butu dafa am yu ma ko waxoon ba noppi jëloon seede ni ko yii ma lay wax boo ko deful di daw génn réew mi la ma ko waxoon noonu la demee loolu laa lay bañal moo tax li may wax nii damay jël seede Sénégal yi yépp sa soppee wax ak yow xam nga ni sa soppe la te ama waxoon ci téléphone ni ni man sawaay laa fekkee sawaay laa nag su ma la waxee dëgg da koy nangu dëgg gi mooy lan fii nga toll nii yow ak ci mandat bii li lay arrangé arrangé waa réew mi mooy sa parti bi nga wut ko wóolu dénk ko ko taxawal gouvernement d'union nationale kuy borom xam-xam ku nekk technocrate yi ak ñi nga xamante ne bi ay homme politique la ñu am homme politique bokkut ak politicien nga taxawal gouvernement d'union nationale boo xam ne ñëpp ci gis seen bopp ñëw ma la nga bàyyi sa parti mais danga koy dénk ku la doy concentré wu ci mbirum réew mi boo concentré woo ci mbirum réew mi bientôt fi ak ñaari at ñetti at da ngay am résultat bu doy waar bu satisfaisant boo xam ne day bégloo Sénégal yi soppee wax yow nag parce que dafa am lu ma lay bañal te man visionnaire la te dafa am yu ñu ma woon am yu ñu ma wax motax munuma ñaka parce que ëlëk gi ci bir damay jël peuple bi sédé waaw ñewuma la nga def lima wax de ndax chef de tang waye amna droit wax le lima gëm waaw ndax man bu fekkon keneen fi nekk ku dul yow batay sama révolution taxawna bu yagg parce que démocratie bii dañoo yor bu ko gën idéologie yi fi nekk ni yi ngeen fi doxale réew mi dañoo am bu ko gën waaw dañoo am le réalisme africain waaw légui nak man li tax ma japp la ñepp xam nañ ko li tax itam duma la lâché ñëpp xam nañ ko bu loolu amee nag bu dëgg jotee dama la ko war a wax publiquement waruma koo xumtoo man dafa am lu ma lay bañal te itam nag fi mu toll nii peuple bi peuple bi wax dëgg yàlla ñoom lay gën a féeteel ci yow ndax sama relation ak yow relation personnelle la ci président bi ak citoyen bi ak ñaari soppe waaye bokkut ak nag la majorité du peuple waaw donc bu ngeen fexee ba peuple bi kontaan man ci laay kontaan waxuma man sama bopp ak sama njaboot de ak suñu projet yu ngeen di tànqamloog yooyu waxuma yooyu waaw li ma ñor maa ngi ci waaw lii sama métier mooy tagg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolay sama métier aw ma soxla ci leneen bañ naa ko ba fi ñu toll mbirum war waaye yi ñuy wax oto nii damaa fas yéene di wut yu màggat waaw <laughs> ndax ku tedd gi dafa am lu ma woon ba noppi am lu may dundloo waaw dunduma leneen bu ko defee nag yow te dama bëgg am ndam ci yow dama bëgg am ndam ci yow li tax ma bëgg koo mooy li tax ma jàpp la jërëjëfee Sëriñ Bàmba ja ca Mbàkke moo tax looloo dox sama digganteeg yow bu ko defee nag moom ba fi ñu toll nag suñu projet de société war nañu ko génne dans quelque temps bu génnee bu fekkee intégré wu leen ko bu ngeen ci nanguwul dañuy devenir nag ay opposants parti de la vérité day mujj devenir parti d' opposition te yooyu yëpp mën naa ñàkk wax dëgg yàlla lii daal laa ne la dinaa la ko adressé waaw te lu ci xaw a ñagas nga baal ma ko waaye li mënuma koo ñàkk bañ wax waaw ah, am nag yu ma leeral ci fan yi ndax dama war a nekk dajeeg taskati xibaar yi am lu ma leeral yu baree baree bari ndax sama révolution dafa jot ci fànn yëpp la waaw religieusement culturellement politiquement waaw te ma sama révolution moom ci domaine yëpp la waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah ba ngeen war yi ngeen baal ma àq nag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 c'est le bonheur. monsieur le maire c'est Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni Dakar instant faut prouver que Dakar instant ci kanam le gars ñu Dakar instant Nous leen laay wax na gars dem abonné actualité Dakar instant. C'est ce que na trop Dakar instant. Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa chaque jour ma information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant na fi instant. Dakar boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. Instagram. Twitter. moom Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout